yonente yi ñoom seen mission bépp mooy yuxrijukum mina zulumaati ila nuur génne nit ñi ci ak réer yóbbu nit ñi ci lumière bu set maanaam ñu mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu set a set tey bu ñu xoolee si wàllu enseignement Imam Mahdi comme ni ko xaddi euh, si waxe woon rek Imam Mahdi dafay doon góor yàlla goo xamante ne dafa war a feeñ si axiru zaman si jamono boo xamante ne euh, adduna dafay jaxasoo tooñ gi dina bëri njëng gi dina bëri injustice dafay bëri si àdduna moom mu war a feeñ ngir indi ay solution yoo xamante ne bu si jaam bi sukkandikoo war na mën a dund ak diineem ba euh, maanaam am si ngërëm li nga xam moom la si yàlla namm dafa ñëw ne anna diina nasiha dina day laayanti biir la ñu ne ko waaw laayanti biir ci lan mu ne wa amma nasiha fa hiya an tansaha lillahi wa rasulihi wa kitaabihi wa aimati din wa li amati lmuslimin mooy nga laa biir jëm ci yàlla akub yonentaam wala ak ay yonentaam yépp ak téeram bii di alquran ak kilifay diine yi ak mboolem jullit ñu ne waaw naka lañuy ñuy laabire jëm ci yàlla mu ne laabir jëm ci yàlla hayya antu wahidahu mooy nga wéetal ko wa an laa tushrika bihi bul bokkaale ak yàlla di jël kenn di ko dendaale ak sunu borom moo ne wax wahdahu laa sharika lahu moom dong la moom képp la amul keneen ku nu koy bokkaaleel moo tax bi mu ñëwee li mu njëkk instauré ci këram mooy kalimatul xaq mooy laa ilaha illallah indi ko ci julleem andi ko ci bu ñuy yóbbu néew andi ko ci bu ñuy tuddee nit ndax nit boo koy indi ci àdd bu ñëwee ci àddina ba ñu koy jox aw tur mu ne kooku tuddal leen ko yàlla ndax bu màggee mu xam ko mu ne itam su génnee àddina laqinu mawtaakum bi qawli laa ilaha illallah gumge leen seeni néew ci wéetaloo ak borom bi mooy ci tudde yàlla ci kalimatul xaq baat bi nga xamante ne mooy baatub dëgg tey bu ñu xoolee euh, li ëpp tey si àdduna loo xam te ne

ndax bu ñu fàttalee bu ñu bu ñu fàtte ne keroog bi yàlla waxee malaaka yi ne leen dina wàccee ci kaw sama kuutaay ci kaw suuf muy euh, yent yàlla aadama malaaka dañu ko ne fii fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa ndax da nga nar wàccee ci kaw suuf koo xam te ne dafay jaxase ak di fa tuur deret donc dañuy gis ni kon yàlla bokk na ci li koy déranger lu bari ci jaam ñi mooy jaxase gu ñuy jaxase kaw suuf ak peut-être violence tuur deret tax yu mel noonu lu koy déranger lay war a moo tax malaaka yi bi ñu koy interpellé rek loolu lañ ko njëkk a wax ndax da nga nar a wàccee si kaw suuf ku fay tuur deret ndax di fa jaxase suuf donc bàyyi bi mu ñëwee mu gis ni loolu pour man si mucc mooy il faut que xale bi moom mu yaru dans un environnement boo xamante ne la mu fay gis day doon la non violence du fa gis dara lomte ne daray euh, kii la daray euh, violence la dara lomte ne dina tey indi instabilité si si biir dundin bi moo tax si biir njàngale mu indi wax ne booy dox ba nit dab dog sa kurus nee na bul fayyu bul réagir sëggal nga for say per nga dem boo demee ba sëgg pour war a for say per mu ne la doo ko fi fare nee na bu boobaa bàyyi kaax kurus gi te nga dem uti ci beneen kurus defe naa loolu bokk na si njàngale bi gën a mag bi gën a siiw si njàngale mbaay laa si euh, maanaam non violence. gisoon na ni démb ci màkkatal mukarrama doxewoon na ndigal saxaaba yu tedd yi di leen solloo ay yére yu weex waaye gis nga ni saxaaba yi boobu yére bu weex demeewul noonu. teewul ñoom it ñu defoon ko tey seen couleur gis nañ ni julit ñi balaa ñuy mën a sol seen yëre bu weex ñu dem ca kaaba ga war a aji ji bu ñu ñëwee ku ne sol sa yëre bu weex tarax laa yu def ni ñuy def daay dem waaye buñ ca paree julit ñi léeg-léeg couleur bu ne mën nañ koo sol waaye moom dafa digaloon saxaaba yi ni albisul biyaada fa innaha atharu wa atyabu inda allahi taala waaye wa kaffanu fiha mawtaakum de leen sol yëre yu weex ndax yëre bu weex moo gën a tedd ci yàlla moo gën a sell ci yàlla su ngeen amee niiw buy dem àllaaxira sax jël leen yére yu weex ngeen solal ko ko loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngaloon saxaaba yi mais Seydina Limaamu bi mu agsee li bu njëkk a moo di dee leen sol yére bu weex mais laayeen biñ daan sol yëre bu weex lu ne dégg nañ ko buñ romb ñaan xool tóotóor yi rek xoola malaaka yi ñi nga xam ne dañuy gaaf tënj nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam. ñu ne waaw laa biir jëm ci alxuraan bi nag. mune la bi jëm ci alquran hi an taqra'ahu moy nga jang alquran wa tatluhu nga mokal ko ba pare di durus, duruus wa ta'mal bima fihi nak nga jëfe li nek ci bir alquran bayyi mbollem nuñ fa téré ba tey bu ñu ñëwee bi dee sax commencé na xamé rek néna nañu ko commencé jangal ponk diiné moo tax boo ñëwee laayeen da nga gis xale yam ne entre cinq ans ba sept ans ba dix avant dix euh, ñu ngi leen di nandal si li nga xamante ne mooy ponki diina ji di nga ñëw laayeen gis xale boobu ne day yor kurusam comme na benn euh, góor defoon si jamonoy Seydina Limaamu demoon seet ji kilifa gu mag si Sénégal ne lan nga xam si sunu mbokk laayeen yi xam ne bu ñuy dem jàkka yi dañuy yóbbaale seen i xale doom yi nga xam ne togguñu jëf yóbbaale seeni jigéen du ñu bàyyi kenn sa kër ga keroog ba mu ko waxee mag moom mag moom daf ko ne kooku de bu ñëpp defoon ne moom safara gedd ndax euh, li nga siy jàng mooy njàngale moom xam ne mu ngi koy jàngal xale yi xale yi di ko màggaale bu fekkee bi ñu nekk xale la ñu assimilé ponki diine màgg di ko jëfe tey bu boobaa mën nañ ne dara loo xam te ne dina leen dévier si yoonu yàlla du am ndam si seen kaw ndax day fekk loolu màndi na si ñoom dañ ba nekk ay automatisme yoo xam ne développé nañ ko ndax am na ay réflexes yoo xam te ne bu ko nit ki adopté màggaale ak réflexes yooyu day dem ba mënul def lu lu lool maanaam ki màggaale ak mbaax màggaale jikko yu tedd bu ëllëgee mënul xam lu bon mënul def lu bon ndax dem ba nekk lu jaxasoo ak ay réflexion réflexion bi njëkk ñëw si moom mooy def lu baax te Seydina Limaamu loolu la jàngal xale yi moo tax boo ñëwee laa laat nga gis xale yi avant sept bu ñuy am sept ans fekk na xam nañ lan mooy ponki jàpp xam nañ lu siy farata ak lu siy sunna xam nañ itam lan mooy kii ndax lan moo si euh, euh, lan mooy ponki julli ak euh, li siy farata ak tàmmal nga say gune ñuy xam yoonu yàlla bay mag yéeneetunoo bàyyi lislaam yaa leen wan yoon wi tàmpeel sunuy tur fa diiwaan yaay borom diine waaw moo tax euh, imaam Malik bi muy def euh, kiiwam bi livre am boobu ñuy oowee samratu daan yi ñu koy oowee ci ñun ñu koy risaala dafa wax ca boppu leetar ba bi muy bindalite bi dafa ne ñi ëpp chance ci àdduna boo xoolee mahdi yu la àndal waaye ju junjul mahdi dafa ni waalam anna xayral xuluubi aw aha lil xayri waaye wa arjal xuluuba lil xayri maa lam yasbuqu charra yow mi jot sama leetar bi soo bëggee xam ñi gën a réussir ci àdduna ñu nekk ñan la imam malik mu ne mooy ñi nga xam ni ba ñu juddoo yàlla moo jiitu ci ñoom ba ñu juddoo yàlla moo jiitu ci ñoom dëkk bi ñu dëkk mu yoof wala Cambérène wala dakaar wala Malika xaleb laa yéen bu juddoo xam nga lu muy njëkk a wax Seydina Rasul loolu rek lay fowe maanaam tudd tudd yàlla moom lay jàngi ay waxam moom ndax bañ koy bañ koy tuddal la ñëpp a toog di ko wax mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ba noppi xale bi fendi ak yàlla xale boobu ci yàlla lañ koy yare waaye li ci gën a doy waar mooy bi mu juddoo ñu tuddal ko yàlla semaine bi dafa dellu si rek sanga bi ne xarfal leen bu dee góor la ñu xarfal mu ne yaay ji teel ko yóbbu jàkka ja na xale bi gimmi ci yàlla libaas ne ko tàmmal nga say gone ñuy xam yoonu yàlla bay mag waaw ñoom ci seen ci seen jamonoy ndaw lañ leen teel a tàggate yàlla loolu nag moo gis moo waral nag foo leen gis ak seeni kurus foo leen gis ak seeni sabadoor foo leen gis ak nangam ndax dañ leen teel a tàggat jox leen yàlla subhanahu wa taala ñu ne waaw laa biir jëm ci kilifa yi diine yi mu ne hiya an tuhibbahum jamian wa tattabiahum wa an tuinahum ala amri mooy nga bëgg leen ñoom ñëpp bul ci utal xaj ak seen waaye itam nga topp leen dimbali leen si seen mbiru diine si seen mbiru diine nag mooy lan mooy lu baax li ñu lay digal nga fexe mu nekk ci yow yoon wi ñu lay teg nga fexe tegu ca alxuraan ja ñu lay jàngal nga fexe jikko woo ko nga fexe xool ci ñoom jikko ju baax nga daal di koy jëfe nga gis ni moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam eh, yeneen bi joxe woon na saxaaba yi tedd yi ndigal di leen bu leen yàlla mayee doom teel leen ko setal ndax setal sa doom mooy xarfal gi ku ne gis na ni yonente yi yàlla daf leen ko teel a defal ca kaw yonente bi jàng si maam Seydil Haaji malik nee na yonent bi kaana maxtuulan ku nu teel a waajal la ci ci waajal ko waaw waajal ko ca kaw moom mais li tax mu waajal ko Serigne Touba dafa ni nazafahu rabbi min al adnaasi jumlataha fa fasaara xayra naas yonent bi boo gisee mu gën ñëpp yàlla da ko doon setal ci ci tilim tilim yi fa la mujj gën ñëpp mais tilim tilim yooyu la sang bi doon ñu bañal moo tax mu teel nu xarfal teel nu jox yàlla. xaraf bi mu ne lañ koy xaraf xale bi ba mu koy jàngale 1884 defe na euh, ñu xamoon loolu si jamono bëriwul tey si année 2000 dem nañ ba ay euh, chercheurs sa États-Unis wax ne xale bi nga xamante ne xaraf nañ ko gin si jamono bi muy nekk liir xale boobu moo ëpp chance ngir mucc si jàngoroy sëy lu mel ni les euh, infections sexuellement transmissibles yem te ne bokk na si sida nee xale bi nga xamantene ne xarafal nañ ko bi mu nekkee lire mo ëpp chance buy nekk mak mëna mucc ci jàngoro yoy di ay infection euh, euh, sexuellement transmissible mëna nak jamono ngi ni ci jamono aalamu anna zaman ittarab wa ihtalata wa zalika fanaun fanzuru kayfa kana al mau in afna tasuul baqiya mëna jamono ngi ci ni jamono jo xamantene jamono ju yaxula jamono jo xamantene jamono ju yëngula mu ne na su ngeen bëggee xam ne jamono yàqu na yëngu na mu ne xool leen ndaa boo xamante ne yaa ngi koy teg sa biir néeg di ci naan mu ne ma bu demee bu toll ci jeexital ya mu ne dafay bëri ay lënj mu ne lënj yooyu nag soo ci bëggee naan bàyyil ba mu teey mu ne àddina noonu la mel ci biir àddina nag bëri na ay bon bon yu ci am mu am lum ñu bañal mu ne wala taakulu illa tayiban ولا تشربوا إلا طيبا ولا تركبوا إلا طيبا ولا تفعلوا في جميع ما تنتفعون به شيئا إلا طيبا من والطيب هو الحلال من بولن لك لو دغان با لو دغان لو تي بولن نان لودول لو تي بولن وار لودول لو تي من مولم لو ngeen di jëfëndiko rek na doon lu baax mbolem lu ngeen di ñu nekk waaw lu tey mooy lan mu ne wa tayibu huwa alxalaalu lu tey mooy lu dagan mu ne lu tey mooy lu dagan mu ne nag lu dagan loolu dana dana ko yàq li ko yàq lenn la mooy tuuti ci lu mu jël mbagaanum soow di koy misaale nag mu ne inna safxata safxata labanin tufsiduhu ka sa dami mu ne mbagaanum soow soo ko jëlee nga teg jël sa kookuk deret benn kaas boo xamante ne dafa fees dell ak deret wala mu am tuuti deret rek mu ne nga sotti ko ci biir soow bi mu ne soow moomu araam naa naan mu ne nag nga am alal ju lew wala nga am mboolem jikko ju baax fësal sa benn bun bon rek mu ne yàq na sa jikko ju baax jooju sa alal jooju itam nga dem jël alalu jàmbur dugal ci biir wala nga luubal dugal ci biir mu ne loolu yàq na ko ndax xam na ni jamono dina dem ba ndóol gi dina metti dëkk bi dana dëgër dëkk bi dana metti waaye ko amul say sa ngor dëgg dëgg dëgg doo fi mën a dund jàngale woon na ko démb mu ne di ngeen dem ba diine jamono ci jamono yi nit tee diineem illa ko qaabidi bil jamr dafay mel ni ku tee xal hmm? xam nga ko sax tey boo nekkee ci entreprise yi di jubal li ñu lay wax mooy yow booy bu ñu jaay gëm yàlla gënu gëm yàlla kenn waaye nañ dóor ci dóor yi rek dem mais nga gis ni tey moom li mu doon xirtal njaboot gi dem nga dem dem ba bo demé serigne ñaanal la nga ni samay aajo fajuul la kay waral moy ka ñaanal lekatu lu lu lew ko mu fagaru njabotam di leen lek leen lu lew wala taakulu illa tayyiban de leen lek lu lew lol nak moo tax itam eh, ñu dimbali ci ñi nga xamantene amana amaana ñu layen gouvernement minu layen sénégalais yi minu nyu boo gisee laayeen seen i demande ak seen problème bari wul dañ leen teunk ci lek lu lew lu tey lu dagan manam du du la fen muk ba lekk ndax sang bi bañ ko nek ki gën bon ci doom adama yi bi koy décrire dafa ni wa alamatul huqq lil insani an yàqula maa yashtahihi ay wala yubadi bi halalihi wala bi haramihi wa shubahatihi man dara gëm yi nga xamni nit ku mu ne ci yow bok nga ci ñi gëna bon mu ne mooy koo xam ne lu ko lu lu ko romb mu lek nu mu amé baxna nu na am rek man dal na am rek na am nu mako amé baxna yaangi lek yaa ngi faale woo li ngay lek ndax teyna wala dagan na fan la ko jëlé sa yon newu ca naa ko am naa ko lekk doy na ma sëkk sàng bi nee foo gis ko mel noonu mooy ñi gën a bon ci doomu aadama yi sama waa kër nag fexe leen bu ngeen di lekk na tey lu ngeen di naan na tey lu ngeen di sol na tey ndax ay alalu yàlla ngeen te yàlla ku jëm ca moom yonent bi jàngale woon na ko ca saxaaba yi nga xam ne waa ji doon ñëw màkkatal mukarrama jënd biyeem ni dafay ñëw pour aji si bi mu ñëw ba agsi màkk naan labbayka allahumma laka labbayka labbayka la sharika laka labbayka nee na atif ne ca kaw naan kaan laa labayka wala saxdayka waaw maakuluka xaraam wa ko xalaam fa kayfa yustajaabu laka yaa ngi juge sab dëkk yow paas bi nga ñëwee fii dafa araam li nga armaale yére yi nga armaale xaalis bu araam ak a jënd sa argent de poste bi nga war a lekk si dara baaxu ci mais léegi lan ngay ñëwee naan la bayka xam nga ne duma la nangul mukk laa yustajaabu laka mënuma laa nangul bàyyi laay nag pour bëgg yàlla di ñu nangul mu ne dee leen tudd dee leen dee leen saxoo di lekk lu di naan lu teey di sol lu teey di tëdd fu teey ndax noonu la yàlla mën a nangule ab jaamam moo tax nag laa laayeen bi tout le temps da ngay dégg ni ah ñoom amuñu soxla te fekk am nañu soxla maanaam yar bi biñ leen yar ci ñuy fexe ba lu ñuy lekk maîtriser ko mu nekk lu teey lu set lu sel ba tey itam bu ñu demee ba si biir dañuy gis ni tey tere gi nga ne bàyyi laay tere na ko lii di tuxum cigarette euh, li si yéeme mooy jamono ba mu koy tere sa 1884. boobu bokk na si si jamono jooju ay euh, boromi xam-xam ay cherche ay maanaam ay scientifique si jamono jooju si réewu nasaraan yi dañu doon wax ne dañu doon gis ay vertu thérapeutique si biir cigarette soosu maanaam dañu doon gis ni que cigarette dafay faj yenn jàngoro yi ba nit ñi sax bu ñu daan am yenn feebar yi dañ lay wax il faut nga consommer na nga dem nga jëfandikoo quantité sàngam si tabac boo ko jëfandikoo rek di nga am solagement di nga wér. maanaam ñoom jamono boobu science comme développé loon yenn développe développement yi dañu doon gis ni que cigarette boobu day faj si jamono boobu la bàyyi laay taxaw dàq consommation cigarette dem na ba ne képp kuy jëfandikoo cigarette na nga bàyyi samay jàkk te it simpi na ay këru ñu lan na si ay taalibeem ndax jëfandikoo guñ daan jëfandikoo pon kon euh, te tey dem nañ ba gis ni que euh, cigarette bokk na si cause yi gën a mag si juróomi cause yi gën a mag si liy rey nit si àdduna ndax waxtu wu ne ay junniy nit a ngi dee ndax euh, consommation bu ñu doon maanaam jëfandikoo bu ñu jëfandikoo cigarette bàyyi laay tere ñu ko si jamono boo xam te ne defe naa kenn xamuloon la sa nekk si danger moom mu ne bu leen ko jëfandikoo bañ ba dem ba sax di tere ay nit di jëfandikoo comme ni ma ko waxee jàkk yi ndax euh, jëfandikoo ñuy jëfandikoo cigarette boobu. dafa am ci biir parti xutbam yi parti boo xam ne moom ci gën a neex maanaam fa la résoudre nag problème yi war a am yëpp yëpp yëpp yëpp xam nga problème yi mooy yan boo xoolee jamono bi ni mu danser boo xëyee lan la ñëpp di jàmbat foo dem sama problème ménage rek la ñuy wax hmm? maanaam cent vingt quatre mille prophètes yi yàlla yónni yëpp mu tànn ci ci biir xutbam benn yonent rek la ci tudd ndax yàlla da ko yónni ci jamono bi gën a metti jamono bi gën a xat jamono bi gën a ëpp complication jamono bi problème yi gën a bari jamono bi fitna yi gën a bari mu tànn ci cent vingt quatre mille prophètes yi xam ne àdduna la mu doon wax moom sallallahu alayhi wa sallam démb ni ajaban li amril muqmin inna amruhu kulluhu xayrun man daal yéemu naa ci mbiru jullit bi ndeke jullit bi léppam yiw la moom seen naa xam ne jullit ni seen problème dana bari seen stress dana bari seeni na bari mu jël xutbu yonti yàlla ayuba tegal leen ko ñu leen dee leen ci jàng nag seen àdduna hmm? xoolal xutba boobu li nga ci mën a jàng tey gis koo xam ne dafa daan am alal ba xëy rek amatul xëy mere tay suñu jamono yi hein nga gis ño xamanteni metilol seen sey day metti lool te kenn nangula muñ mu won la digënté ayuba ak rahmata manam nga xamni pour nga mëna gérer sa ménage gis nga ci biir xutba boobu ci lay expliquer problème yi wara am ci société yi entreprise yi lan moo tax du dox kër yi lan moo du dox jàkka problème yi fay nekk lan moo tax muy bari yooyu yep yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mu ngi ko fay expliquer ëlbatiku nag di la jox solution yi nag te solution yi kenn ci ñun nee na di ngeen dem ba jamono asalaamualeykum sax amatul amatul sens tey dañuy xëy doo liggéeyandoo ma xëy asalaamualeykum nga ne ma waaleykum salaam maa ngi la romb di seeti patron bi pour fenal la rek kon asalaamualeykum gi amatu ci sens yàlla na ba nekk ci yow te yaa ngi ëlbatiku di ko xañ jàmm ci kilifaam natt yooyu yëpp nag def ko résumé ci xutba boobu ñuy ooyo xutba ayubaam boo ci demee di nga xam ne kii yàlla da ko yónni ci ay nattu mu daal di dem tànn yonent bi ëppoon nattu daal di ñu ko andil muy sayidina Ayuba alayhi salaatu wa salaam. mu ne nag wa kunu ixlaasan wala takunu fasaadan mu ne nekk leen ñoo xamante ne ay sellalkat lañu te bu leen doon ñoo xamante ne ay yàqkat lañu mu ne kuunu musaatan lil xayri wa jullaasan an sharri nekk leen ñoo xamante ne itam dañuy dox jëm ci ab yiw bu ñu déggee farata dem ca bu ñu déggee lu baax dem ca. la leen di yëkkati daal mooy lu baax farata moo leen di yëkkati mu ne nag kunu jullaasan ani sharri nekk leen ñoo xamante ne suñu déggee lu bon muy ndëpp muy sabar muy mboolem bërëbu caaxaan boo xamante ne nit war na faa dem caaxaani mu ne fexe leen yéen bu leen ca bokk nekk leen ñoo xamante ne daal lu baax dong moo leen di tax a jóg farata dong moo leen di yëkkati yiw dong moo leen di tax a yëkkati mooy dox leen ci mbokk de leen seeti seen mbokkum jullit bu tawat de leen defar jàmm de leen defar ay diggante. njàngale mi euh, place bokk na si place bi nga xam ne bàyyi laay jox na ko jigéen ndax tey euh, foo tourné si àdduna ñu ngi xeex pour l'émancipation de la femme ñu ngi xeex pour ay affaire parité pour joxaat cër jigéen ci biir euh, diine wala ak leneen lu dul diine sax seen aliment Limaamu jamono bi nga xam ne moom ñëw na li mu njëkk a indi mooy. dafa fekk ñu jël jigéen jox ko place boobu ne mën nañ ni jigéen amuloon benn baat ci diine moom mu ñëw xam ni tey jigéen ak góor ñoo maase si jaamu yàlla ndax donte yàlla nee na wali rijaali alayhinna darajaat jox naa góor ni kilifteef gi si kaw jigéen ñi itam loolu waxul rek ne dañu war a jël jigéen si euh, maanaam si jaamu yàlla gi jigéen dafa war tënku si ginnaaw ku góor ki maanaam dafa war a néewal jaamu yàllam ku góor ki yokk jaamu yàllam déedéet firiwul loolu li muy signifié kay mooy ku góor ki mooy comme ni yàlla organisé woo rek moom léppam daf ko teg ci hiérarchie comme ni mu ko defee ci biir yonente yi dafa bëgg lépp am euh, ordre lépp am kilifteef moo tax mu jël góor ñi kili def leen ñu doon kilifee jigéen ñi mais loolu waxul ne rek jigéen ñi dañu war a maanaam sàggan si jaamu yàlla gi ndax tey jaamu yàlla gi jigéen ñi ak góor ñi ñoo ci mbancé condition yi nga ne ak ah, euh, obligation yàlla teg ci loosu ku góor ki moom teg ci loosu ku jigéen ki mais ci jamono moom Seydina Limaamu jamono boobu jigéen amul woon joxuñu ko woon cër boobu moo tax bi mu ñëwee moom Baye Laay bokk na si li mu njëkk a indi mooy si biir jàkkam mu préparé fa place boo xam ne jigéen ñi dinañu ñëw di julli si jàkk ji comme góor ñi di fa àndandoo ak ñoom mu jël place boobu nag séparé ko ak benn mur boo xam ne si jamono néegu ñax la ko séparé loon boo xam ne jigéen ñi du ñu gisante ak góor ñi waaye góor ñi dinañ julli ba julli gi jeex du ñu gisante ak jigéen ñi du ñu jaxasoo ak ñoom pour rek rétablir jigéen si ay droit am ak ay devoir am si biir euh, l'islam ba loolu tax tey ñu dem ba jamono foo tourné si Sénégal di nga gis si jàkka yi Euh, ku tabax jàkk rek préparé nga fa espace ba mu yaa ngi koy jox jigéen ñi bokk na it si si loolu xam ne sañ la wala bokk ay cër yoo xam ne bàyyi laay joxaat na ko jigéen bokk na si euh, ndigal li nga xam ne jox na ko si muy mën a tuddandoo laa ilaha illallah di ko bàkk comme ni ko góor ñi di bàkke sa jamono boobu itam bëri woon na ay opposition waaye dem ba jamono tey defe naa amul fenn fooy dem benn këru diine booy dem si Sénégal foo xam doo fa gis jigéen joo xamante ne dina taxaw di jàng ay poème yu ay kilifa diine bind dem nañ sax ba organiser ay euh, maanaam compétition internationale yoo xam te ne ay jigéen ñoo fay dem di euh, ak ay jaxasoo ay góor si di tari alxuraanul karim ñu xool kan moo daax a tari. fekkoon na fi moom sallallahu alayhi wa sallam ca jamonoom jàkk yi ñu doon ci def palaasu jigéen waaye dañu dem ba ca biir gaa yi ni déedéet jigéen na toog ca këram julli ca jàkka ja andi woon na xadis yonent bi àddu ci loolu wax ni laa tamna u laa na u ima allahi masajid allah bu leen tere jigéeni yàlla yi ñuy dem ci néegu yàlla bi bi mu dellu seedi jàkkam il est le seul bu mas a tabax ci Afrique sawu jant jàkk joo xam ni góor ñi dañuy julli ji jigéen ñi dañuy julli ji mag ñi dañuy julli ji ndax tàmmal nga say gune ñuy xam yoonu yàlla bay mag moom Seydina Limaamu alayhi salaam jàkkam joo dem rek góor ñi jigéen ñi ñoo dem ci biir jàkk ji waaye am na bunt boo xam ne góor ñi fa la ñuy duggee am bunt boo xam ne jigéen ñi fa la ñuy duggee moom du dawal rideau loolu nag dafa ne woon lii ma wax dee ngeen du am waaye di ngeen dem ba jamono ñëpp dinañ ko roy tey jàkka joo dem commencé nañ ut place pour jigéen ñi ndax gis na ni jigéen ñi ñu ngi ci biir diine ji. ñu nekk waaw nag ci àddina bii ñu nekk naka la ñu fiy defee ne àddina médd la médd boo xamante ne nag duuf na duufaay goo xamante ne ku ma ku moytuwul di nga ci lekk inna dunya jiifatun wal jiifatu laa yaakiluha illa al kilaabu wan nusuuru mu ne medd de su ko lekk dudul ñi nga xam xamante ne mooy tan yi ak xaj yi illa al kilaabu ndere góor ñu bon ñi wan nusuuru ak jigéen ñu bon ñi mu ne ñooy lekk médd àddina mun ne nag fexe leen ba yéen bu leen bokk ci medd moomu ña koy lekk bu ñu demee aussi si wàllu li nga xam ne mooy fondement wu diine lu si mel nii euh, tey euh, asaka bi bàyyi laay def si indi solution yu mag boo xoolee si li nga xamante ne moom la ñu tàmbaloon si cosaan si di si natt azaka moo doon nit ki alal yi nga xamante ne déjà du woon si alal yëpp si du woon si bien yi nga xamante nit ki am na ko yëpp si yenn catégorie de la ñu doon wàcce la ñu doon natt azaka bàyyi laay mu ñëwee dafa appliquer azaka si biens yëpp yu leen kii di euh, ba tey boo xoolee dañ doon wax ne azaka bi nit ki nga xamante ne dafa fayeeku am euh, wërsëgam li mu épargne si at mi maanaam bu toogee at li mu épargne si loolu lay natt azaka bàyyi laay bi mu ñëwee mu ne déedéet lépp lu jaam bi fàggu si wërsëg rek na si génn asaka ma ñu jàng si ne kon képp koo xam te ne da nga am salaire bu dee salaire horaire la maanaam dañ lay fay par heure bu génne heure boo fayee ko sa salaire horaire rek war nga si mën a natt asaka boobu nga génne ko si bu fekkee kii fayee ko par weer la natta si li nga xam te ne moom la fayee ko mu génne ko parce que boo xoolee euh, genre contradiction bi am wala bokk lu illogique li am si biir atte bu njëkk bi mooy euh, naka lañu mën a comprendre nit Euh, fayee ko xaalis du si génn azaka waaye day xaar ba mu am at te azaka bi li si yàlla na moom mooy dimbali ñi nga xam te ne seen loxo jotul seen ginnaaw ngir ñu mën a am lu ñu dunde tey kon bu ñu bu ñu bu ñu sukkandikoo si atte boobu dangay gis ne que kon nit dina nekk si ak xiif war a toog at pour moroomu mbindeefam bu gën a euh, maanaam ku yàlla gën a wërsëgal war ko war a dimbali donc nit ki kon day connaître sax si pauvreté boobu pendant un an balaa ko kële di mën a am temps mën ko jox azakaam donc bàyyi laay solution bi si indi mooy nit ki bu fayee ko si weer wi rek 1000 euh, francs yu mu fàggu rek na si génne juróomi dërëm yoo xamante ne mooy doon asaka bi nga xamante dina ko dimbalee ka nga xamante ne mooy ko ñàkk euh, te loolu boo xoolee mooy lii gën a yenu maanaam ndax dina tax nit ki au fur et à mesure muy dund dina am nit ki ñàkk au fur et à mesure muy dund si at mi rek période bu jot rek dina am lu mu encaissé si asaka loo xam te ne ndimbal lay doon lu tukkee si euh, moroomam yi nga xamante ne am nañ lu leen yàlla may ba ñu womle nee na nag àddina gi ñu nekk buñ fi bëggee mucc nañuy ëppalante yiw alaaxira wala takaasaru maala dunya bal takaasaru xayral aaxira mu ne bu leen ëppalante mbiru àddina walla poñetum àddina ndax àddina la yam bu leen ëppalante alali àddina ndax àddina la yam waaye li ngeen ëppalante lenn rek la mooy yiwu àllaaxira fexe leen fii ngeen nekk ci àddina ngeen defar fi seen àllaaxira mooy lan ci lu baax mooy lan ci lu sell mooy lan ci aw yiw lii lañu ñu limaamul maadi yu mbokki jullit yi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim